voilà gars yi tëdd nañ mais dafa benn live bu gaat xam nga ah, dafa am lu naan yàlla noppi na <laughs> ah, dama ko wax benn waay quoi mu na ma donc yàlla bu noppee ça veut dire boo ko ñaanee du la may ma ko no yàlla bu noppee boo ko ñaanee dina la may mais ça dépend ci leen koy ñaar ma ne ko par exemple yàlla dafa sàkk jigéen am nu mu ko mooñee mu ne jigéen dafa am benn période boo xamante ni bu fa tollee ci lay commencé gis mbaax muy gis mbaax di gis mbaax di gis mbaax ba benn âge bi bu tollee ci âge boobu noonu dootul gis mbaax dafay ménopause léegi yow nga toll ci takk jabar nga dem takk jabar bu ménopause ba pare saa yoo jullee ngay ñaan yàlla mu may la doom doo am doom waa mu dëgg doo am doom pourquoi parce que yàlla dafa am lu mu wax ci jigéen dafa am lu mu ko mooñaal dana la boo takkee koo xamante ni moom expiré na pose na boo doo amee sens doo ci am doom waaw foofu lañ ne naan yàlla noppi na loolu moo tax ñu naan yàlla noppi na dégg-dégg moo jafe quoi mais boo commencé am dégg-dégg rek lu su bëri day commencé yomb ci yow quoi dégg-dégg nag pour nga am ko dafa laaj gëstu ak patience foog nga am patience quoi loo dégg tell rek nga ne toj na wala damm na te loolu dafa bëri ci doomu aadama du nit yu ñuul rek mais partout dans le monde mais humain comme ça dañoo yàqamti fekk am na loo xam dafa laaj nga toog observé ko di ko xool di ko gëstu comprendre nga ah, après da am réponse bi quoi réponse bi day ñëw automatiquement day ñëw sànq dama def benn publication si sama mur ma la le racisme a encore gagné mooy combat wu ah, Feury ak ak ak ak Gano mu am ci ay sénégalais ay africains ay nit yu ñuul yoo xam ne dañoo défendre tubaab bi ne affaire boxe la euh, daanu taxul waaye dem na kaaw taxul mu perdre quoi ma ne ndeysaan xoolal ma ñee rek yàlla jox leen xel mais bugguñu ko utiliser xel jëruñu lu dul xalaat leneen loo ci def da ngay perdre sa temps. pour xalaat kese kese xalaat kese la du def leneen lu dul xalaat moom loolu rek mooy liggéeyam dafa mel ni gémmiñ wax rek mooy liggéeyam ak lekk ak naan amul leneen lu mën a def bët pour xool kese la lépp lu nekk ci nit dafa am spécifiquement lu tax ñu créé ko boo ko buggee utiliser pour leneen <laughs> da ngay sonal sa bopp rek euh, waa ji lan moo tax mu perte pour nga comprendre ko il faut nga xam nu monde bi di fonctionner tey moom bu ko joxoon victoire bi infrastructure box infrastructure box mooy collapse da day daanu day mel ni comme tremblement de terre day yàqu day daanu quoi ils vont perdre des milliards pourquoi parce que déjà Fori dafa signé ay contrat ak saoudien yi ak tubaab yi ak sponsor yu mag yi parce que depuis longtemps moom moo ngay gagné mosul am defet donc sponsor yi ay milliards la ñu investir ci moom ay support yoo xam dañ ko créer ci turam ak ci fotom ay programme yoo xam dañ koo créer à base ci moom moom nu muy fonctionner ak nu muy gagner loolu tey bu ñu bëggee mu arrêter lépp ci benn minute c'est des milliards yu ñuy perte donc ils ont tout fait pour mu bañ a perte donc combat bi it wasn't fair du woon combat bu fair play su que boo xoolee benn point la gañee waa ji point yi kan moo koy bind du ay nit ñoo koy bind est-ce que ñu doon bind bind nañ la ñu war a bind that's the question léegi quand je parle d'infrastructure waxuma rek ay estaad mais li ko ëmb li ko globaliser lépp africain fee construire seen infrastructure toujours tubaab bi ñoo ñuy contrôlé gis nga américains yi est-ce que di nga leen gis ñuy dem di jouer ay Europe di bokk ay Champions League non dañoo créer seen propre système déjà li ngay woowee football en Europe sa ñoom fii beneen genre sport la tu vois Afrique ñoom ñoo soxla ay infrastructure Afrique ñoom ñoo soxla consommer seen produit entre eux par exemple xoolal ñun ñun ñoo gën a riis ci kaw suuf Afrique or monde bi yëpp mu ngi Afrique jamaaw monde bi yëpp mu ngi Afrique pétrole monde bi yëpp presque mu ngi Afrique gazu monde bi yëpp mu ngi Afrique phosphate monde bi yëpp mu ngi Afrique ñun ñoo ëpp ay jën ci kaw suuf produit halieutique monde bi yëpp mu ngi Afrique ñun ñoo ëpp ay terres yu fertile ci kaw suuf ñun ñoo ëpp ressource humaine parce que ñun ñoo ëpp ay jeunes ci kaw suuf dëkk tubaab bi ay màggat rek a fa nekk parce que juruñu ñun ñooy continent bi gën a riche mais ñun ñoo gën a misérable ci lu yàlla bind ñun ñoo gën a xiif ñun ñoo gën a sonn ñun ñoo gën a feebar pourquoi parce que tubaab bi mooy ñëw di jël ñun lu ñu moom loo xam ne c'était pour nous ñu jël ko yóbbu ko tubaab bi rek mënul ñëw def ko moom rek toujours dafay am complice complice boobu noonu africain la comme ñun loolu la ñuy woowee doome xaraam mais soo koy wax danga ko war a wax d'une façon boo xamante ni ki nga koy waxal da ko war a sentir c'est que loolu la ñuy wax doome xaraam doomi haram doomi haram deug bokoy deug moy lolu donc donc y a toujours des doomi haram yo xamanteni ni dañuy empêcher développement wu Afrique pour des intérêts personnels mais doomi haram yoy kan mo len di élire au pouvoir c'est le peuple c'est nous le peuple de ñoo leen di votel Leur donc nous nous ñuy à la fin est-ce que nous ñun nous, créé ñun ñoo nous, créé seul nous ñun nous, nous fabriqué ñun nous nous créé parce que nous nous choisir que nous nous nous, nous, tapet le nous, mais c'est fou nous du tapet Macky ku am fit la du il est super intelligent parce que nit bu intelligent wul du def le Macky def du réussir le Macky réussir pendant 12 ans maki il a réussi son plan parce que maki c'est un politicien un fin politicien papa am plan plan bi mu am exécuter noko pièce par pièce pendant 12 ans ben nit moo téye de 17 millions de personnes ñep mu dugaleen ci porte. Tête de leen manipuler magistrat marabout, chef religieux généraux kilifa la généraux généraux armée police la préfet gouverneur alal commerçant la intelligent def ko amul fitam réussir non loolu kii nee na ma loolu jeex na loolu jeex na parce que moom jeexal na du day dem ku jeexal dafa faaleete loolu moom li mu bëggoon am na ko ba pare ñun pendant douze ans mu dund loolu ñu ci misère jaxase sénégalais yi rey nit ñi dóor gaañ ñii blessé wu ñii sont devenus des handicapés ñii ñàkk seen bët ñii daw génn Sénégal ñépp na teg toog quelques-uns ñi ci jóg ñi jàpp nañ leen tëj ñi jàpp nañ leen rey mais xam nga peuple bu jógandoo xajuñu ci benn armée ci kaw suuf quand je vois certains jeunes yuy soutenir Macky dama ne xoolal see doomi xaram aussi pour ay intérêt personnel mais nit bu conseil mënul soutenir Macky sa waay ak li fi Macky def yëpp Adji Sarr jeune fille de rien du tout jàpp benn góor accusé ko état bi profité aussi ki Adji Sarr liggéeyal témoin nday yi xaw ma njaay ne loolu amul lii moo am ak lii ak lii ak lii ñu bind ñu xale bi ci médecin di ubbi ñaari tànk yi gynécologue xool ko mooy al Ousseynou xaw ma nan boobu médecin boobu noonu mu ne kii versul mais ci vingt quatre heures yi ñu génn wala ci nangam heure yi ñu génn amul kenn ku ko yegg médecin officialise bind kase capitaine Touré bokk ci enquêteurs yi gën a xarañ ci Sénégal yu gën a sérieux xale bu ndaw biir gendarmerie ñëpp jox ko cër xamna limay wax mu def ay enquêteam ku ragal yalla def ay enquêteam conclure da ndaw si limuy wax yeb ay fen la capitaine Touré bu muy wax lolou xamul Ousmane Sonko xamul kuy Ousmane Sonko xamul sa ku xam ku jégal Ousmane Sonko parce que bu amone ñom duñ ko denk dossier bo donc ñi nga xamanteni ñoo ya, wax ñu dem tribunal juge bi ne affaire bii nii amul gouvernement bi loom ci ne force dafa am ay yu bëri dee ci problème yu dul jeex dëkk bi yëngu ci din façon boo xamante ni même jamonoy esclavage dëkk bi Sénégal yëngoowul noonu même jamonoy Lat Joor Ngoone Latyr Joob Sénégal yëngoowul noonu ñëpp na teg toog donc nous tous on est des complices faraw yu bëri ils sont là pour leurs intérêts ay terrain wu jàmbur lañ leen jox ay suufu jàmbur lañ leen jox xaalisu askan bi lañ leen jox ñu koy lekk reykatu nit muy ñëw di leen ziar di leen àndal xaalis ñu koy lekk te kooku bu ñëwoon ci seen kër yi daan leen nangu bu nekkoon ci jamonoy lislaam dëgg dañ ko war a jàpp rendi loolu lislaam wax ku rey nit dañ ko war a rey vous comprenez donc y urgence que Macky Sall dem foo ma ki dem ma ki ay bande rek la jël nommé leen ci ay postes yu kala xoolal procureur de la république bi en ce moment jabaru Tony Silva la jàpp di juutal waaw ex jabaru Tony Silva moom tas moom tas jabaru eh, Tony Silva di fanan ci biir këru Tony Silva nangu ay bienam nangu alalam kooku nga foog na ñun référence la ci moo tax may saaga ndey procureur chaque jour chaque jour dinaa saaga ndeyam c'est ces dooméram là qui nous dirige c'est ces dooméram là qui nous sert de procureur du référence dégg ngeen lu Ousmane Sonko wax ci moom bi yaayam hospitalisé ay jabar Ousmane Sonko ñooy togg añ ak ndékki ak reer di ko yóbbul ndey yaayu procureur hôpital donc xam nga ñi et se connaissent parce que petit frère procureur à Ousmane Sonko des vrais amis ils ont grandi ensemble Thiès te xam nit mooy doomeram am na loo xamante ne man rus ko am na loo xam man aduna jaro, ma ko du ma def dara du ma def ay procureur yu génne enam école bu précise boo xam ñëppay rêve di fa dem benn imbécile géologue bu musul dem sur le terrain

man su ma gisee nit bu ñuul bu am complexe yu tubaab danga may yem xam tubaab mo gëna a téegal sen ci lu yalla bind ci kaw suuf sen intérêt rek sen intérêt rek même ñi ci sey ak yow ni ko ci arrêté laal mu mu mu mu yaq sa dara wala wala fexal la dëgg la amna suñu BME ni leen tollu ñom

Et l'ont créé. Et l'ont provoqué. Pourquoi Parce que ils ont failli en Ukraine. Guerre Ukraine, bi moo dépassé. donc il faut ñu suul ko mais mënuñu ko suul noonu rek daw comme nañ def Afghanistan daw il faut ñu créer leneen orienté ñëpp foofu pour gars yi fàtte fii guerre Ukraine dañ ko perdre complètement guerre boo xamante du guerre Ukraine guerre États-Unis quoi parce que américain yi ñameetuñ dem guerre fenn ci kaw souf? guerre ils l'ont perdu mais s'ils étaient un peu intelligents s'ils avaient utilisé leur intelligence les services d'intelligence comme il comme il le fallait les Russes nañ xamante ni Russie kenn du avec ak Il y a quatre pays ci kaw souf? quatre pays qui kenn la guerre ak ñoom mais leen ba àdduna di tukki nag Russie Chine Iran Corée du Nord dëkk amul benn dëkk buy nooy ci kaw suuf bu mën a xeex ak quatre pays yi gañe leen amul ça n'existe pas ñoom dañoo foogoon ne avec OTAN bu ñu attaqué Russie six mois un an Russie sonn jeexal arme ñu gañe ko comme ça ñoom ñu mën a ñu monter seeni satellite de contrôle biir écran pointé ko Russie non yombewul noonu du yombee noonu waxoon naa leen ko guerre bi mu commencé defal naa leen live war leen frontière yi xaw ma ndax yeneen fàttaliku live bu war leen lan moo waral guerre bi ak lepp tu vois donc il nous faut des patriotes il nous faut des gens qui aiment vraiment leur pays qui aiment leur peuple yërëm peuple bi Sénégal pauvre man mi gëna nek nekk électriciste bir Sénégal man ma gëna man ma électrique bi gëna mag ci Sénégal man bu ngeen ma joxee Sénégal ma développé ko imaginal yeneen boroom xam-xam yi bu ma joxee Sénégal ci minute ma développé ko donc imaginal yeneen borom xam-xam yi man dof bi ku ma jox Sénégal ma développé ko ci une heure donc imaginal suñu doctorat yi suñu borom xam-xam yi Sénégal dafa soxla tranquillité Sénégal dafa soxla jàmm on est un petit pays ba pare téye monde bi ah, en haleine c'est pas normal fitna rek ci at yi ñu génn ñi doon tàllal seen loxo di ñaan ñu su bari dem nañ làqatu si journalisme en ce moment damal nga xool ña ñooy ay journaliste Sénégal damal ci organe yëpp nga xool ñi fay liggéeyee mooy ñi doon tàllal seen loxo di ñaan ñoo xam loolu mooy seen baaxu maam ñaan c'est ce qu'il faisait léegi làqatu nañ ci journalisme moo tax doome ram ji moo tax mbiru doome xaram bi <coughs> bëri ci presse bi c'est très facile à comprendre du leneen lu dul loolu ñoo xam rusuñu woon ñaan ñoo xam rusuñu wax waxu doome xaram ñoo xam ne rusuñu sumeeku sa taat neen ci kanam nit ñi c'est eux qui sont devenus des journalistes pas yu génnee sës mais yu génnee ci ay école de formation yine global école de formation ay ISEC école de formation yu ñàkk xorom yooyu dem un an six mois whatever deux ans maximum nga génn ak benn diplôme toog ci télé yi ci rajo yi créé site wala dem leeral wala dem Seneweb wala di bind ay affaire dëmm di duul di jaxase nit ñi yàq nday dëkk bi quoi dëkk dañ koy organiser dëkk dañ koy organiser dëkk bu mel Sénégal waroo am sa xaalis sa jóg rek tabax jàkk wala juma dañ ko war a dañ ko war a organiser fa war a am école buy former imam yi juma yi état bi moo war a contrôler koy tabaxee parce que foo xam dafay rassembler ay nit nit jóg rek tabax jumaam dafa wax lu ko neex ñi koy déglu dafay bari par vendredi te mun na fa wax musiba mun na wax loo xamante ni dafay laaba cerveau nit ñi ñëw foofu ñu commence la radicaliser loo wala ñu commence la gëmloo leen leneen dëkk bu sérieux dafay organiser dëkkam dëkk njiitu dëkk doo bàyyi dara fopp ngay contrôler mais pas pour noor dëkk bi mais pour développer dëkk bi fopp ngay contrôler pour mën a développer dëkk bi fopp ngay contrôler fopp ngay teg say nit fopp ngay teg ay ñi gën a xarañ ci domaine boobu foofu nga leen di teg ba pare mu am contre contrôle comme na ñu defee contre espionnage dëkk boo xamante ni da ngay rey nit sax doo dem kaso parce que doomu ministre nga ñaatu doomu ministre ñoo fi mandé dem génn auto daw ay kilomètre yu ay ay ay ay ay vitesse ray fi ay nit mos nga leen gis ñu àtte leen kenn musu leen àtte ñaatu magistrat ñoo fi tëddee nday jabaru jambour est ce que gisé nañ leen kenn gisé wu leen on a tous ces documents là ak ay preuve donc justice bi deux poids deux balles la quoi justice deux poids yoy lo quoi du yoon dëkk justice bi day def nii justice bi sax bu jalgatee ñu juge ko comme ça population bi ki la gën a pauvre gën la illettré gën la ñàkk gën la gën la bañ a xam ay droit am il doit se sentir protégé il doit se sentir citoyen dafa ci war a sentir ne ci la bokk dafa war a sentir ne ak lu mënta xew bu ko kii ëpp alal ci kaw suuf tooñee ci dëkk boobu noonu ñu protégé ko loolu daf koy sentir ni que il est loolu mooy dëkk mais pas ay favoritisme loolu dafay dagg gis nga vous clique bi ñuy diriger nii wallahi azim vous allez le regretter man Ousmane Ba maa ko wax parce que yéen du nga nekk au pouvoir jusqu'à l'éternité tout temps dinañ leen poursuivre benn par benn nag yenn a xam fu ngeen nekk ci kaw suuf dasa bile zengeen dëkk bi parce que bañante bi am Sénégal musul am Sénégal te c'est ce que lol ngeen bëggoon mais lepp dinañ ko réparer dëkk bi dinañ ko récupérer nañ ko defaraat dinañ len arrêter dinañ len juger dinañ len tek dinañ len poursuivre dinañ nangou bien yi ngeen kan, sàcc d'un autre côté